loolu xam nga ndeysaan bu booy ñaam mbokk yi bu ñu firndeel tey ziar naa la ci loone maa ngi nii sant yàlla baax a baax yaa ngi cool waaw ah nam naa la de waaw yàlla daal taaye saar nga moo tax da nga may daw man man man mooy loolu man taaxe ba laa rek sa waay mais ñu del si maalaw tey deux cent pour cent Pikine firnde wu ci diggante seen ak organisation. waaw loolu. maa ngi bëgg naa yor te sama patron ñu ngi waa Sénégal di ñaan Sénégal yàlla di ñaanal ñëpp jàmm. naam di nga yéene ñëpp jàmm. taxul am ko. ñi nga xamante ni ñu ngi may suivre à travers sama snap maa la TikTok bi li am tay biir Pikine yàgg na bu baax maanaam ñu comprendre ñu comprendre xajale yàlla xam na loolu suñu jàng bi yëpp xam na dëgg naa bu kaw yàlla bi ñu xaw montam ñu Pikine mi ngi mel ni ñu ko platé ay prince daana boole seen grand yi bu leen mën a ñu di leen ñaanal ñu yàlla gën a sax. ndax xam nga loolu dafa

ah oui sponsor daa commencé. booy ñaa li mu def bëri. dem kër ñoom. waaw moom loolu mooy image xam naa ci mbëri loo xamante ni. ñii sax xam naa ñu ngi dégg ñu woote xam ñu ko def ñu ñu fi maanaam ñoo ñu derrière les waxkat yi waaw wax ñooñu ñooy sàjjee waaw way maa ngi sant yàlla bu baax a baax mo do wax lu ñaaw ci lamb wax lu yëngal ay mbër cohésion en masse mooy ñëw am taw man dama koy def Thiel ci boppam ñaar problème mooy ñu nekk ci pour am luñ leen il faut que wax loo leen ko wax ñu ay cohésion pour gën a taal mais man yi amuñu problème mais yéen a ngi ak jàmm waaw parce que am ci liggéey bi dañ koy dañ koy liggéey amul njëriñ liggéey bi amul njëriñ boo am. Amala ñoom ñaar ñu bokk te boo ko commencé boo ñaar dugg si Amala moom loolu day gën a garaaw xam naa ko ni amuñu problème maanaam nit ñi nekk nii loo xamante ni nit ñi ginnaaw di xalaat ñu yaakaar mbër yi ñi nga xamante dañuy yaakaar mbër yi mbër yi amee contrat bu leen may waa ñoom non la ko doon may ñëwaat loolu non problème mais ku bëri wax maa la wax booy ñaar mais ku wax maa la wax waa li teg gis ngeen bëri vendredi samedi dimanche ak anniversaire bu coono bari nga si bopp sama xarit la sama grand la bu yàlla boo ko raw loolu laa mos a mel conférence boobu lay doxee moo ñaar boo diggante ak moom wurante garab la dama koy liggéey li ma nekk sama image. li ma nekk jëm ngeen li mu wax. soirée waa mu ne foofu. waaw man man genre nit ñi. yàlla xam na ne bilaay. man man su ma yàlla fayal li ma tey am na yenn yenn mandat yoo xamante ne su ma ko amee ay nit ma jox saa yi ma wax loo may wax su ko xamante ni yow tey boo ko sa bopp nga xam ne ndax yéen ko loo ko tey nii àdduna moom la jikko waaw passeport Amérique du caaxaan de moo tax may la jaar ñooñu du ma sax wax ak ñoom waali ku ko xam-xam ni il est le meilleur le centre du peuple maanaam mooy koo xamante ne nii c'est l'incontournable instant bii Youssou Ndour ay ñëw Youssou Ndour ñoom mais ci génération waa li les trois de la rue sénégalaise xoolal mooy la ma ñu détaillé yooyu tey du yàlla may loo xamante nii tey moom rek def ko ko sa image bi lay jox xaar day wax yoo xamante nii waaw borom loolu yëpp wéy beeg orangement yi dugg ci portable yi nag mooy ñu lay wax loola xam nga koo xamante ni tey kii na nu mu tuddati télé nga télé dañ lay commandé si la sape alors que yow moo gëmoon sa bopp gëm ni nga mel ak li nga yor mun na wax mun nga wax ay nit. waaye dama am problème ak kenn. li ma leen wax waaw ah, dama nekk koo xam ne mën na dem am sama nit aw ma problème ak kenn mais maanaam dama nekk koo xam ne maa gëm kër waa teg yow boo ko dem boo ko teg ba ba cinq fois. da ngeen def la wala dara sama gaal la waaw sama grand frère la waaye de mu waroon sama sama tur ak boo xamante ne ay ak dama ko ba. milliards ak ay visa États-Unis moo ko bàyyi dem beneen surtout ay plantation ay woote kaay dañ lay yóbbu fii ba ay visa bi tollu ma ay ba ay ay dugub bi ma parce que ay woote ne a ay visa ay jago ay mot la ñu doon wala ay affaire yoo xamante ne nii. sax de damaa gëm te tuuti. waaw li ma dégg moom moom man da ngay waaj a dem tamit. war naa ci wéyum béy ñu ne da ngay waaj a dem. xam nga li ma yor mun naa wax ko ah bon yow man dëgg la ma la tuuti tuuti saa yi man ndigg bii jëlu ma dama nekkoon Maroc di liggéey naroon dugg ci gaal yi sama dama bul dugg mën a dugg ci gaal say morom fi jaar dama fi ñu jaar morom bu gars yi nañ noppal rek taxam ne sama action médiatique bi ci wàllu tool bi ci lépp waale dëkk kontaan naa. ay yow ay yow ay yow Viviane. ay Mawonde. ay Sidi Diop. maanaam at boobu ay Sidi Diop. boo ko waxee waa Diop boo ko waxee waa Diop.